tey jii nag ñu am yéene di fas yéene waxtaane feebar bu ñuy wax hépatite B hépatite B nag euh, mbokk taalibe yi ñu bari mën nañu wax ni ci dëkk bi léegi dañu seetlu ni daf fi bare ci dëkk bi organisme bi ñuy wax OMS wax na ni soixante quinze pour cent ci population africaine dañ ko am ñenn ñi am nañ ko mu wér ñi ci des am nañ ko ba tey ñi ci des dañu nekk ci phase chronique ñi ci nekk ñi ci des nekk ci ay porteurs sains loolu nag bu ñu waxee hépatite B ñu bëri ci nit ñi niñ koy faral di découvrir ci seen yaram mooy dañuy faral di dem fële ci banque de sang maye seen deret yàlla dogal ndax bala ñuy bala ñuy jël bu ñu mayee deret bala ñuy joxe deret ji kenn dañ koy saytu bu ñu xoolee dañuy gis ni dañuy gis présence virusu antigène HBs positif te loolu day day wane ni. kon doomu jàngoro bi ñuy wax virus hépatite B nekk na ci deretu aji feebar bi aji feebar boobu nag mën na nekk góor comme mën na nekk jigéen comme mën na nekk xale mais liñ ci gën a gis ci ñoom li ñuy gën a indi rek mooy comme ni ma ko waxee bu ñu mayee deret dañuy gis ci ñoom feebar bi bu ñu leen ko annoncé ne dafay nekk lu leen tiital waaye fi muy grawee mooy bu demee ba nekk phase chronique mais bu xamante ni nekk na ci porteur sain mën na nekk li xam te ni mën na bañ a graw ndax am nañ ci yaakaar lu bari en général si ci ñun wala boudé ci man képp ki xamanteni wax nañ le porteur sain nga man dina am solution pour fat la mais bi ma mënul fat moy ki xamanteni dem na ba dugg ci phase chronique bi phase chronique bi en général buñ ko xolé, taux de transaminase bi ak charge virale bi day dépasser 2000 te taux de transaminase man très souvent bala may fais nit hépatite B dama koy demander présence du virus bi échographie abdominale la présence du virus bi ci transaminase ak charge virale Vous bu que c'est inférieur à 2000 virus ci kàttanu suñu borom mën nañ koo faj mais si ça dépasse les 2000 loolu dafay dem ci phase chronique boobu mën na jur cirrhose du foie wala mën na jur cancer te en général suñu doole ak suñu pexe ak suñuy mën-mën eggul foofu waaye ki nga xamante ni moom tuddal nañ ko porteur sain rek porteur sain rek bu ñu ko déggee maanaam ki nga xamante ni virus bi mi ngi ci yaramam mais en général day nelaw virus bi réagiragul kooku moom ci kàttanu yàlla mën nañ ci dara parce que boobu dañuy wax ni virus bi mi ngi ci deret bi mais laalagul rein yi laalagul bile bi laalagul pancréas bi laalagul cœur bi maanaam mi ci deret bi tout simplement te bu ci kàttanu yàlla am nañu ay garab yi nga xamante ni mën nañu leen ko jox ba loolu mu dañ bare na très souvent ñi xam xamante ni dañuy voyager

bu fekkee nekkagul ci chronique rek amna ci yakar ni bu jëlé traitement bi ci ay rendez-vous ñaar ba ñetti rendez-vous manam moins de 2 mois ci 45 jours inshallah allahu rabbi virus su hépatite B mën nek luy dañ ci mom kon nak comme nonu ñukay waxé rek amna ci yakar bu baax képp ki nga xamante ni hépatite dal la muy hépatite B hépatite nak bari na amna na hépatite A amna B amna D amna C mais biñ ci gëna gis bu ci gëna doy war mooy hépatite B bi ndax mooy hépatite bi jur cancer kon nak képp ki nga xamante ni loolu la rek bu fekke ci yaa ngi nekk ci phase bi nga xamante ni phase bi nga xamante ni porteur saint bi jiemal xefe noñu jégué ci kàttanu yàlla am nañ ci ay pexe ndax hépatite B en général bëri na ay hépato gastro-entérologue yi nek fi ci Sénégal ñi xamanteni ñom ni seen xam-xam dafa match ci jëm ci walu fajub hépatite am na ci xamanteni bari wax dëgg yàlla lëkkaloo nañu ak ñom ñuy envoyer seen malade porteur saint ba yàlla def ci tawfiq am nañ ci yaakar bu bari bari bari ñu jàppale leen ci dimbale leen ci muy élève yi ak ñi nga xamante ni itam macha allah rabbi muy góor ñi ak jigéen ñi xale yi ñenn ñu bëri sax feebar bi daf leen di dal xamuñu sax fan leen dalee ndax feebar bi xam ni ñu ci gën a bëri ko am ñoo ngi ko jëlee ci sëy en général ndax feebar la bi xam te ni euh, mode de transmission yi toujours day dem ci wàllu voie sexuelle maanaam ñi dañu sëy ak nit muy góor wala muy jigéen kooku wàll la ko dafay nekk feebar yu doy waar te dañu xam ne itam euh, ci ni ma ko mën a jàngalee ak ni ma koy expliquer mooy tëflit yi du ko wàlle ci surtout transmission yi nu muy Quand kon tëflit du wàlle mukk ak euh, virus hépatite B mais li ci gën a bari ci voilà la wala ci ay layset bu la dagg wala yu demee noonu mais yooyu itam cas yu raar la mais li ci gën bari ci la kon wax nit vigilant gën baye bàyyi xel ci ci anam yoyu ndax feebar yi wàll ci wàllu sëy dafa bari gëna a aar bop ci jumtu jumtukaay yi xamanteni état wu Sénégal tek nako fi pour ñu qui a ay fièvre kon li ñu mëna wax rek qui deug qui képp virus hépatite B dal mu ya xam kula qui wala kuy sa mbokk wala dal inshallah rabbi am ci ay pexé am nañ ci ay garab yi xamanteni euh suñu cabinet fi ci arrêt Lamine leen fi consultation bi ñu waxtaan ak seen documents yi xamanteni mom la euh, ñu xool lépp étudier ko xool fan la feebar bi toll ci yéen ci seen deret ci kàttanu suñu borom dinañ ko mën a faj lu mu ci mënti nekk danañ leen wax dëgg suñ ko mënee faj dinañ leen wax ni niveau bi mu toll dinañ ko faj te yàlla tax su ko dépassé itam dañ leen di wax vraiment mu dem suivre hépatogastro-entérologue yi nga xamante ni ñoom bu demee ci phase chronique yi ñoom danañ ci am pexe ñun nag pexe bi ñu ci mën mooy ku nekk ci phase euh, bi nga xamante ni mooy phase bi nga xamante ni mooy phase porteur sain bi virus bi mi ngi ci yaramam mais day nelaw te yu gën a bari loolu la ba ci muudu muudu yi nekk à l'extérieur ñu ci bari ci ñoom feebar boobu itam dafa bari ci tubaab yi ñu ci bëri dañ ba ñu xasee bu tukki ba génn Sénégal ci leen feebar yooyu di faral di dal te incha allahu rabbi ku mu ci mënti dal ak foo mënti nekk ci àddina boo leen wootee ci numéro bi secrétaire bi dana leen orienté jàppale leen ba ngeen xefee jot ci garabu hépatite B yépp ak bu dee itam hépatite A boobu day xaw niroog tuuti euh, ak feebar bu ñuy wax feebaru pays kon nak bokul ak pays sax ba tay mais am nañ ci yaakar ni hépatite A bi ak ak pays danaka ben la mais ci katul yàlla kumu munti dal nañu xam ne dañ ko mën a faj daal ci alcorane insha allah rabbi bu nexe yàlla ak yonent bi ci barki Serigne Touba ak mam Cheikh Fall. tay ji nak ñu fassiyene waxtane lenn ci li nga xamanteni lu sonal askan wi la. ñu febaru hépatite B.